bëgg nag occasionné woowaat njaboot ci mbir moo xamante ni fan yu néew dégg nañu fi polémique bu njabootu Tiwaawan ñu koy wax Ibrahima Ndaw Badiane noo bokk sababu tarbiya daayiratul muxtasina la bokk taxawaay yi mu wax wax ko ci xàqu kilifa yi ku xam ku kër gi yar ak ku xam ku yaroo ci kër gi xam nga ni bokkuñu ngeen baal ma ci kanamam xam naa sax du ko bëgg waaye damay occasionné ci kanamam ndax dafa am loo xamante ni bu amee ñun lañ koy joxe te nun yëgunu ndax du nit nangu ku ñu nen danoo nangu ci waaw a nen danoo nangu kilifa yii di sunu kilifa danoo nangu ñu doon nun seen jaam ñoom ñu doon sunuy buur bu leen neexee takk fas tukkal nu ba fu leen loolu la yàlla dogal te ku nanguwul a am kilifa sëriñ Babacar si nii dafa waxoon ku nanguwul a am kilifa jinne di sa kilifa kon su yàlla dogalee mu bokk ci njaboot sëriñ Babacar waaye nanguwul parce nanguwul nee nanguwuma Tiwaawan nen na nanguwuma Tiwaawan moom na ñun danoo nangu Tiwaawan nen mu nangu Tiwaawan moom ka fa yàlla dogal tey muy kilifa ga di Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour moom la def sunu kilifa bu nu nangoo mooy sunu kilifa bu nu nanguwul mooy sunu kilifa kon su yàlla dogalee occasion bi mooy première occasion bu ma sàkku lii sax taxuma woon a jóg waaye mu waxin waxin woo xamante ni taalibe du ko wax ci xàqu sëriñam waxin wa xaw a irresponsable xaw a manqué de respect Tiwaawan xaw a doyadi moom sax moo doyadi ndax Tiwaawan du doyadi ci sa kanam laa koy waxe ñu xam ni nun kat boobu boobu wàll laale wuñu nun li nu laale mooy nangoo am kilifa yem ci liñ ñu teg muy sunu sababu tarbiya sunu kilifa Cheikh abdul Aziz lolou la bàyyi won man mi ak Cheikh Tidiane mi ak Soxna Astu mii rawatina Serigne Babacar Sy mi di sunu mag nu andando ko wax ko pour que mu nekk lu nuy jël nun muy sunu fulay bop bu nu kenn bu nu kenn néewalal sunu kilifa yi bu nu kenn néewalal Tiwaawan bunu kenn néewalal kii nga xamante ni tey mooy le chef suprême de la confrérie di Seydi Aboubacar Sy Mouhamadou Mansour sunu ko defee bàyyi nañu sunu masuliyaat te bàyyi sa masuliyaat mënatoo nekk responsable ci sa wetu kilif moo tax kenn santuma ma wax lii man maa ko jëlal sama pasteefu bopp parce que ñu bëri dañ ma interpellé ci semaine yi ñu génn waaw waaw yéen ngeen di wax ah waaw moom day bu waxee yow lay tudd te nee na yow yaay ki ko nen man nenu ko ña ci Tiwaawan xam nañ ni nenu ko maak moom yëpp dañ ñoo bokkoon nen man ma nangu sama wàll moom mu lànk bosam وخني جواون إني فخور بك لأني ترعرعت في أرضك فكنجل أصلي ولكنني رضعت الهداية من فديك من يكون داو دفن اللامي يتيتو عور يقول كسر المعصو برم دارجي جوكو بفاي نير بانجستان سري مانصور جيل كوي liir ko ne papa ku def lii mu ne ko ma Ahmed Tidiane yi naw mu ne demal nga wax ko ne ko ku am ku def lu am solo daf ko war a wax ci mbooloo mu am solo bàyyil ba daayira yi daje nga woo ko mu ñëw jàng xasida bi xasida bi toog nag sëñ Maodo ci dëju sëñ Moustapha Sy Djamil boobu yàgg na nit ñi di jàll ba ma yegsi ci sëñ Mansour nuyu ko mu téye sama loxo ne Maodo mu ne ko mu ne ko gone gi def na xasida boo xam ne ilham la te lii ma fi wax ña jànge keer ba ñëw mënuñ ci dindi benn xaraf te jànge ma fenn fu dul Tiwaawan kon tabaarakallaahu li sëriñ Moustapha wax Moustapha mi ci moom la jànge lu bari man ci moom laa jànge koor ak mbalaanum wadifa ndax ñoo màggandoo mu njëkk ñoo ñeme géewu wadifa ak julli ci jàkk mu ngi nii njëkk ñoo jël weer keroog ba muy jël weer ci Serigne Cheikh ca Géréw booba jëlee ko ma weer tabarakallah ñuy ànd guddi gi ñu koy béyee di waxtaane xam-xam ci kër mère Maguette Sall ca kër ñoom Baye Moussa waaw ca la waaw tabarakallahu tasamarna laylin bi inda taala ذكر مقت ملقفة بصل شريك وبعد الشاي فوفا مؤلفة بنانا الشكورة لي مودي دارا مي توكي تالي لا غاي وقتو خام خام دي ناخ نيت ني دي دوري مارتو تاوني يو باخ nga xamne wax deug yalla sel nañu sel ko xamne tabarakallah sel nañu nañu baax ko xamanteni buñu bu rek sonu na buñu ñu rek sonu na ba ma dalee di wax ñi naan dama ko man lu koy añaane ku am ñaanu alaaji ak ci sa dund ñaata at maa ngi Italie kenn xamul fu ma ne foo dem ci aduna bi ñu ngi jaay samay waxta lolu ku luma ko may luddul ci awon nen ma am na ne bu ko fay man kañ la jógee dunya kon gàcce ngalama si demba li ñu am yëpp yéen takk nañ buum ci suñu bopp jox leen fu leen ne wata du dem duñ leen war mukk duñ leen war mukk keroog sëñ Babacar Cissé mii bi ma ko déggee Italie xale yi ne ma suñu nijaay daf ñu seet ci ma ne leen du yombe noonu nee ko na xaar diire bi daje ñu defal ko teraanga ndax yaaye soxna umul xayri si ku dugg ci awoon mu jox la nga lekk du fi ñëw mukk